ab bis bi la ndaw Bébé Bismi moo jàkkaar ak ñun Siteu bu Ngor moo ñu woon ginnaaw ñaari mbëri xeex nañ ee ci raw Bébé Bismi jàpp moo koy suqi moo koy suqi moo koy suqi moo koy suqi moo koy suqi moo koy suqi moo koy suqi moo koy suqi moo koy suqi moo koy suqi moo koy suqi ee moo ngi suqi de pareegul moo koy suqi waa kii ee Teubeul Siteu bu ndaw nga jàpp moytu mu jàpp yaa ngi topp dóor yi Bismi Bébé Bismi yaa ngi jàpp yaa ngi topp dóor yi moo ngi koy suqi ñoo ngi koy suqi moo ngi koy suqi ah génn saako yi dugal na ko suqi waat na ko un oh, waa Siteu bu ndaw encaissé rek moo ngi suqi deux moo ngi <laughs> bon kay Korité dama koy suqi de lii de mooy boo ma daane sa suqi <laughs> ku nekk téye nga sa kii téye na loxo kii téye loxo gauche ñoo ngi si biir saako yi baa dañuy génn déedéet cor alma daal na ko xale bi daal na ko Bébé Bismi daal na ko Sitor bu Ngor daal na ko Sitor bu Ngor doon na la waaye daal na